ayca mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di bekk euh, di leen ziar mbokk yi ñu dellusiwaat suñu bisuwaay muy Amady Badiane tey nag euh, moom la yàlla may tuut tànk mu di ko tudd yàlla na dund ta barkeel kenn ci ñoom ñu muy liggéeyandool xaali mbay dogo ku nekk xam ko ci Ramadaan xaali ñu ngi lay nuyu di la ziar. mais ñu ngi lay fay bu baax di la delloo ziar bu wér sax di sant yàlla bu wér. ni ñu ko waxee ñu dellusiwaat ak Amady mu am bis ngeen teewal ko waa Ramadaan ñëpp. ah waaw mais dañuy ñëw tudd suñu doom ñun ñoo jur doom ji ah euh, di sant yàlla bu baax doom moom kado la ka mu nekk kado bu rëy boo xam ne bu ko yàlla mayee sant yàlla rek da ngay def li yàlla digle ci julit nga tudd ko loolu moo ñu fi indi rek ñu tudd suñu doom. ah mais noonu ñun famille la ñu Ramadaan ñun ñëpp famille la ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak baay waaw ñun famille la ñu Amady nekk nag sama mag. xam nga féete ma fa mag ñu daam daan toppante la dafa am ay ay normes yu fa am kilifa ki mag jiitu rakk yi topp ci ginnaaw Amari doon sama mag yar ma yàlla defal ko mu yor jikko joo xam ni ci raam daan ñaw rek la fa nekk def lu baax wax lu baax Amari bëggul dara Amari li mu bëgg ci raam daan gépp mooy raam daan avancé mooy raam daan jëm ca kam ca kanam mooy waali fépp fu ñu koy séntu ci aar fu ñuy séntu képp yàlla teg fa waali moom loolu rek la bëgg bëggul leneen barki sëñ Bamba. lépp lu koy séentu ci waali yàlla teg fa waali ci noonu ay fan ñaari fan seen album génn international. waa mais dañ ciy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla moom mi nga xam ni muy suñu patron di waali yàlla na ko yàlla fay xolam bu ko yàlla fay xolam waxuma la disque d'or bi bi gën a mag ci disque d'or yàlla dina ko ko jox ndax am na liggéey bi mën na ko def na ko am na jom j am na fulla am na fayda kon lépp loo xam ni dina yokk nit ci wàll bi muy liggéey nii yàlla bu ko ci kenn raw yàlla na ci raw ñëpp ci barke Seydina Muhammad album bi génnagul disque d'or bi ñëwagul mais mu bari coow bari polémique nekk nga wax ñi wax jaar nii waaw mais loolu c'est normal nag c'est le Wally ah bon ah oui Wally la Wally tamit nag ah, moom la te nit nag li naan euh, boo bëggee fàdd ñay faw nga am doole waaw ñay lay fàdd te yàlla may na ko kattan bi ak muñ bi ak jom bi yàlla na ko daaneel ah waaw non xam nga mbir moom da ngay def li nga war a def bàyyeeg sénégalais yi bàyyeeg àdduna bi astafurlah àdduna bi yëpp bi liggéey jotee liggéey na ñu koy am dañ ko gën congolais yi maliens yi nigériens ñoo ko mën a am waxatuma ñun dañoo am benn idée bu ne suñu bopp ay est-ce que dina yomb ak dina ko am loolu du wax ndax ñu koy am gënuñu ko te gënuñu ñuul kon yàlla na ko yàlla jox ci barke Seydina Muhammad ñuy xaar euh, bébé Waly mu ndaw loolu la ah, euh, loolu nag moom lu ne mën cee ne exclusivité la la. ah ah exclusivité loolu lu ne mën na ci lu ne mën na ci am. ah loolu tawfeex la. ah lu ne mën na ci am. yéen di xaar ku door mën na ci am lu ne mën na ci am ci kàttanu yàlla ak yonent bi. romb na loolu. ñun Ramadan romb nañu loolu ñun dañuy tuddante ay doom di dem lante ñun famille lañu ñun Ramadan waaw. ah non non non dégg loolu lu ne mën na ci am ñun Ramadan weesu nañ loolu nag ah mais ñun fa lañ toll tuddante ay doom ah fa lañ toll barke sëñ Bamba déewuma ko mais romb na loolu romb nañu foofu ñun Ramadaan ki ci ginnaaw nii di sama mag di Lamine Naar war naa ko tudda doom war na maa tudda doom bay si gars yi ram ko lim da ngay juum lu ñu lim mais ñun Ramadaan foofu la ñu toll tuddalante ay doom parce que ñi ngi demlante ñi ngi siqante ay teraanga ki Lamine Naar mi féete nii ak ku keneen ku toog fi daan lu ne ci poosam bu ma ko soxlaa dama koy jël comprendre ñun jàmm la ñu yéenante bokk ndey ak baay di ànd ni nga ñu gisee nii nag barke seexul xadim billaay wal kitaabi ñun groupe bi ñu yàlla boole yàlla na nu yàlla lafal cat yàlla mosal ñu ci seytaane ñu ndey rek lañ bokk ak bàyyi amuñu benn problème parce que ki ñu jiite bëggul problème jàmm rek la bëgg ak di ñu boole ñuy bokk ndey ak bàyyi amuñu problème boobu lu ne mën na ci am waaw yal na yàlla doole jàmm te yéen euh, journalistes yi li ma leen di wax rek ñenn ñu ko mënul nan ko bàyyi yàq ngeen dëkk bi tas ngeen dëkk bi waaw parce que xëy rek yor sa téléphone di wax rek te li nga xamoo ci dara mun jari ah da ngeen koy jàng ñi ko mënul di li ma wax ñi ko mënul na nga ko génne nag ñi ko mënul ah, waaw ñi ko man nag te koy liggéey xam nañ fi ñuy jaar waaye ku xëy rek yor sa téléphone wax lii wax lii jaxase kii jaxase kee kee xeex ak kee kee xuloo kee na yéen a yokk ay waxam ñun nag fii kenn du fi yokk suñuy wax ndax ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk jàmm jàmm rek la ñu am yàlla na yàlla doole jàmm ci barke sëñ Bamba. kontaan nañu jërëjëf. boo ñu mayee bii ñu jël de barke yàlla boo ñu mayee bii ñu jël. ah déedéet déedéet waxuñu boobu de. waxuñu boobu de <laughs> li ñu moom. Eh, bii ñoo ko moom suñu ñamu bët. wala xanaa doy na. am nañ ci mbir de kontaan nañu. doy na doy na vraiment doy na. bébé bébé rek lañ doy na bébé bébé bébé. famille la famille la famille. waaw ah, yéen doon lal bee def lal bi. waaw kon tamit ah, ah, mbégte xol mu sedd. waaw lii rek sama mbëbët la woon. sama mbëbëtu àdduna la woon bu fi yemoon sax mu nekk. waaw waaw non non waxit la rek. waaw. waaw. isbar lay waaye julli. laale mhm. ba bu laale ba koy tuddee. macha allah macha allah macha umbul kenn desaan. amul ndax. Mhm. sëb yàlla na yàlla bàyyi mu liggéey. yàlla nga ko jëriñ. allahumma amiin allahumma amiin. boo ko jëriñee yàlla mu ko muurloo. mi ngi noonu waaw. Ah. waaw mais c'est normal parce que dafa am fu mu waxee te fi mu waxee man foofu lay dund. dafa waxee ci ne groupe yi ñu demee bitim réew bu ñu gisul waal yi man la ñu gis te effectivement sa vrai foofu laa ne <laughs> duma bëgg kenn manqué dara ak façon ba koy def ak yëg-yëg ba ma koy defee moo tax mu waxee ko ci yëg-yëg mu laal ma moo tur ay xewal mais daal macha allah kontaan naa daal kontaan naa ak lu ci mën tam sama xol sedd na kontaan naa ah sama jabar ji tam yàlla ko yàlla may wér a gudd fan ndax daf maa indi lu ma gën a bëgg sama àdduna muy góor yàlla ko yàlla may wér ak gudd fan mu màgg ba teral ndey waaw Wally Seck daal la muy nit waaw mais c'est normal émotion Wally Seck daal la muy nit je l'aime beaucoup foofu laa mën a yow Amady xool leen bébé yéen ñaar ñëpp xool leen bébé xool leen bébé regardez voilà. ma sa loxo mën na jóg nga jokkoo si bébé xool laal ko laal jël ko tuuti. a laal bébé tuuti gën a laal bébé tuuti voilà très bien. Ah. xam nga mën nga mu dem ah. ah. gili gili ne ko gili gili ah Amady man man nga lool. teg ko fa teg ko fa. maanaam suulee nga xool ñu fii ah. mais maanaam xoolal bu ko Amady bis moom kay da nga bis wala ndel bi xoolal Amady sëgal sëgal sëgal sëgal. Amady gars yi am ndel bi sa ndel sëgal bis. sëgal laa. waaw Jules boo boo boo sëgee rek. bi mooy papa yaay doom. monument de la renaissance kii wala sourire rek bul bi sourire. bi mooy monument de la renaissance. xooli tuuti ak sourire bi sourire. Eh, maanaam maanaam xooli. xool na nga fóon na maanaam. fóon na sax <laughs>